أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده rabbi audu bika min alkasali wa suui alkibar rabbi audu bika min cadaabin fi nnaari wa cadaabin fi lqabr assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñi ngi ànd ak suñu bopp ànd ak yéen ci li ñuy séentu mu di tabaski tabaski waxoon nañ leen ne moo di li nga xam ne danañu ko rey ci bisu yowmal iidi ak ñaari fan yi ca topp waaye nag waxoon naa leen ne li ci gën a am solo mooy nga def ko taqarruban ila allahi taala nga jaamoo ko yàlla loolu rek mooy li ci gën a am solo lan yanaala allaha luxumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum tabaski am na am na luy niru tabaski itam te du tabaski yal nañ ci yàlla boole musal waxoon nañ leen ne boroom xam-xam yi wuute nañ ci ndax dafa war walla sunna la waaye li gën a yaatu <clears throat> moo di sunna bu ñu fedd li la ala ahli kulli baytin muslimin qadirin alayha kër gu nekk daal te ñu nekk ay jullit te am kàttan ci def ko bëgg nañ ñu tabaski ndax sallallahu alayhi wa sallam la yàlla jox ndigal ne ko bismillahi arrahmani arrahim inna aataynaaka alkawthar fa salli li rabbika wanxar julli gi foofu moo di salaatal iidi naxru bi moo di tabaski am na boroom xam-xam yu ko firee noonu te itam yanu na maanaa sallallahu alayhi wa sallam woon man kaana dabaxa qabla salaati fal yucid képp koo xam ne danga nga rendi sam xar lu jiitu imaam di julli na nga baamtu abu ayub al radiallahu anhu nee kaana arrajulu fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yudaxi bichaati wa ahli beyti nee na ci jamonoy sall sang bu tedd bi alayhi salaatu wassalaam nit ki daana wut gàtt bu baax te béskee ko moom ak njabootam kon nga gis na benn gàtt <coughs> nit ki mën na koo jëfandikoo moom ak njabootam ndax jaamu yàlla la buñ ca wutee leneen nag ak puukarewu ak wanewu ku nekk di wane ne mën naa am naa kàttan ga te yàlla taxul loolu moom yàlla nañ ci yàlla boole musal bu fekkente ne ku nekk man nga nag wàññiwul dara sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa leen te tabaski lu am solo la nee na maa amila bnu aadama yowma nahri amalan ahaba ila allahi min iraqati dam nee na bisu tabaski nit ki jëful jëf bu gënal yàlla tuur deret wa innaha la taati yowma alqiyaamati bi quruniha wa adlaafiha wa ashcaariha wa inna dama la yaqacu an illahi la yaqacu min allahi caza wa jalla bi makaanin qabla an yaqaca cala al ard fa tiibuu biha nafsa sang bi nee na yowmal qiyaama xar mi nga xam ne moom nga tabaskee woon day ñëw ànd ak béjjén ya ak weya ak karaw ga deret ji nga doon bi nga tiimee di ko yéwénal deret ji li muy gaaw gaaw balaa muy laal suuf am na palaas bu mu tàbbi fa suñu borom subhanahu wa taala kon na ngeen ko def ak teeyu bakkan sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi mas nañ ne ko ma hadihi al adaahi yi ñuy def lan la mu ne sunnatu abikum ibrahima sunna seen baay bu tedd bala mu di xalilullah alayhi salaatu wassalaam ñu ne ko maa lana minha ñun lu ciy suñu yoon qaala sang bi ne leen def leen rekk pepp karaw bu mu mën a doon ci xar mi am ngeen ci tiyaaba bi kulli shaaratin xasana ñu ne ko waaw fa suufu suuf bi nag mu ne ba tey bépp karaw bu ngeen jële ci suuf bi ba tey xasana la xanaa kon mbokk yi loolu am na solo waxoon nañ leen itam liñ jublu ci tabaski moo di at taqarruba ila allahi taala def ko rek ngir jaamu yàlla bi ci tegu moo di dundal sunna suñu maam ibrahim mi nga xam ne moo di imaamul muwahidin ba ko yàlla joxe ndigal ne ko na nga rendi sa doom te moo di ismaila ba mu demee ba jëfe ndigal la thumma fadaahu bi kabshin fa dabaxahu badalan anhu mu tegal ko gàtt jote ko ko wa fadaynaahu bi dibxin azim bi ci tegu itam moo di nga bégal sa njaboot at tawsiatu ala alciyaali yowma alciid wa ishaatu rahmati bayna alfuqaraai walmasaakin waaw teral sa njaboot bégal leen ba ñu xam ne ñoom itam am nañu bis bu jara bége loo ci mën a dimbalee itam am yërmande ci ñi nga xam ne ay foqara u lañu ay masaakin lañu seen loxo jotul seen ginnaaw nga jàppale leen te yàlla tax bi ci tegu nag moo di sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo la terale ne la yiikat ay mbindaafoon lañu comme yow waaye yow doomu aadama yow mi ma teral def la ngay kilifak adduna yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fil ard wa id qaala rabbuka lilmalaaikati inni jaailun fi l xalifa kon doomu aadama mooy kilifa suuf doomu adama moomu nag yàlla tàggatal ko bàyyi may nga war cee mën a jëfandikoo muy xéewal ñeel la ñeel sa njaboot ñeel képp ci yàlla def wërsëgam xéewal googu mbokk yi nga sant ci suñu borom moo di shukrullahi tabaraka wa taala ala ma saxara lana min bahimati l an'am yàlla nee na fa kulu minha wa at'imu al qaani'a wal mu'tar kadhalika saxarnaaha lakum la'allakum tashkurun lan yanaala allaha luxumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum kon doomu aadama yàlla fàttewu ko bakkan ni mu foore yàlla terale la ne yow bakkanu bàyyi ma yii yow laa ko terale kon yàlla na ne lekk leen te ngeen jox ci saraxe ci leel ci ñi mënul amul dara fa tabarakallahu waaw man maa leen ko tàggatal ndax ngeen sant yàlla kon mbokk yi tabaski loolu mooy xikma bi loolu mooy gaaya bi bi tax yàlla yoonal ko ci fi xam-xamu doomu aadama àgg ak fa mën a yem la ca des nag <clears throat> yàlla rek a xam akub yonentam fa tabarakallahu waaye ñun nañu jëfandikoo rek su ko defee bu ëllëgee danañu am ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala kon mbokk yi tabaski ngi noonu léegi kan la tabaski war la tabaski war yushtaratu li ijaabil udhiyati waxoon naa leen ne yàggi am na boroom xam-xam yu wax ne dañ koy dëgëral moo xam da nga wax udhiya wala da ngaa wax idxiya am na ñoo xam ne nag noonu dañ koy bàyyi boo demee ci téere bu ñuy wax ashalul madarik di charx irshad salik fi fiqhi imam al a'immati malik tabarakallahu ci buntu tabaski moom nee na dañ koy shadda dañ koy dëgëral nee na charte bi nga xam ne mooy tax tabaski war ci ñuy wax ne tabaski dafa war te moo di indal xanafiya ñi nga xam ne dañoo wax ne sunna la te moo di ñoom sayduna imam malik radiallahu anhu ak ñi mel ne moom moo di nga am kattan ci tabaski alqudratu alayha fala tutlabu min alaajizi anha fi ayaami iidi l adha ki nga xam ne amul kattan ci def ko def lot kenn du ko forcé damu la xam ne ko il faut nga tabaski walmaqsuudu bilqudrati inda alxanafiyati nee na kattan ci tabaski nag buñ ko waxee ci ngiru imam abi xanifata moo di al yasaar ay yasaarul fitra wa huwa an yakuna malikan miatay dirham alladi huwa nisaabu zaka aw mataan yusaawi hada alqadra zaidan an maskanihi wa libaasi aw xaajatihi wa kifaayatihi huwa wa man tajibu alayhi nafaqatuhum <clears throat> ngeen baal ñu xaq bu baax a baax ci baat bi nee na <clears throat> ci man nag dëgg-dëgg ci indal xanafiyati mooy ki nga xam ne am na ñaari téeméeri dërëm <clears throat> ñaari téeméeri dërëm nag jubluwuñ ci mille francs dirham huna liñ ci nam moo di ak dirham al shari loolu yaakaar naa ne waxtaane woon nañ ci bi ñuy waxtaan ci azaka wala boog danañ ci masa agsi incha allahu tabaraka wa taala maanaam lii tax nit ki mën a génne asaka nisaab boobu muy am bu nit ki amee lu toll noonu wala mu am ay marchandise wala jumtukaay yoo xam ne suñ ko xayma woon dana tollook montant boobu te mooy ñaari téeméeri dirham shar'i yi nga xam ne loolu sa dëkkuwaay bokku ca li ngay sol itam bokku ca sa aajo bi ngay war a dunde yak sa njaboot itam bokk ci kooku tabaski war waaye nag wal qudratu alayha inda al malikiyati huwa alladi laa yaxtaaju li thamaniha li amrin daruriyin fi aamihi walaw istataa an yastadiina istadaana ki am kattan nag ci tabaski ci ngiru imam malik radiallahu anhu boo demee sharxu risalati li abi zayd al qayrawani ma nga fa huwa alladi laa yaxtaaju ila thamaniha li amrin daruriyin fi aamihi mooy koo xamante ne kii am na lu ko loo xam ne mën na koo téye ren ba déwén te du ci am soxla boo demee ca xutba bi suñu maam cheikh alxaaji malik si radiallahu anhu def ci mbirum tabaski yàlla nañ yàlla wutu ci fayal ñu ko xutba bu rafet waaw xutba bu rafet boole ragal yàlla boole xam-xam xutba bi arabe lool ba noppi nag saf-sap ak naxwoog bayaan ak leneen lu ni ba noppi lamboo axkaam fiqhiya yoo xam ne ci fu dëgër la ko teg moom Cheikh Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu gannaaw ba mu gëstoo dellu ca fa mu war a dellu ndax moom li ñuy tuddee al amaana al ilmiya ci moom la fekk baax Cheikh Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu lu mu la wax ci xam-xam rek dana la wax fan la ko jële diw nee na nangam diw nee na nangam diw nee na nangam bu noppee nag mu ne mën nag wa qultu fa qultu ma wax man la ba ca doy gannaaw ba ma balluloo <clears throat> ba ma dégloo waxi boroom xam-xam yi ba noppi ma jëfandikoo mën tam sama xel nag wax la ma ca doy boo demee ci xutbaam boobu mi ngi naan walqaadiru inda malikin al imam an laa yaxtaaja li thamaniha fi l ki am kàttan ci tabaski nga xam ne sunna la ci moom moo di ki nga xam ne kii ci ngiru imam malik radiallahu anhu te moo di imaamul a'immati an laa yaxtaaja ba mu bañ a aajowoo li thamaniha ca njëgg fi l ci at mi kon nga gis ne mbokk yi bari na koy sonn ci tabaski te fekk tabaski warul la senegal gii ku fi mën a téye njëgu tabaski ren ba déwén fa tabaarakallaahu te doo ko soxla yaakaar naa ne bariwul de moo tax ma ne woon tabaski jaamu yàlla la du aada tabaski jaamu yàlla la du folklore tabaski jaamu yàlla la du lu ñuy foye tabaski jaamu yàlla la du du ñuy puukarewoo ak di wane wu ne am naa am naa mën na xeebe ko ki nga xam ne kii amul mënul bëgg ko wane ne ko duma sa morom loolu mbokk yi du tabaski déedéet walqaadiru inda alayha inda almalikiyati huwa alladi laa yaxtaaju ila thamaniha li amrin daruriyin fi aamihi man ko téye ren ba déwén cent mille francs yi ngay jënde xar wala deux cent mille francs yi ngay jënde xar wala trois cent mille francs yi ngay jënde xar nga mën ko denc ren ba déwén te doo ko soxla am nga leneen loo dépensé am nga leneen loo faye courant am nga leen loo faye ndox am nga fa leneen loo mën a fay xale bi jàng ren ba déwén seen faj nga mën koo garde te doo ko soxla kooku la tabaski war mbokk yi waaye terewul nag nee na walaw istataa an yastadiina istadaana waaw nee na bu fekkente ne bii nag amul lu mel noonu waaye yaakaar na ne bu lebee dana am lu mu faye kooku ba tey mën naa leb fa tabarakallahu pour bégal njabootam jaamoo ko yàlla ba noppi bégal njabootam ndax bañ ñu génn di xaaraani wala ñuy yalwaani wala ñuy tuur seen ndoxu bët ci seen kanamu ay nawle kon kooku mbokk yi mooy ki nga xam ne kii tabaski war na ko léegi mu ne li nga xam ne moom ngay tabaskee te moo di gàtt bi moo xam bëy la moo xam xar la moo xam nag la walla muy gëléem dafa am ay chart yushtaratu li sixati l udxiyati maa yati bi ci njëkk moo di salaamatul xayawaanil mudaxa bihi min al uyubi al fahisha allati tuaddi aadatan ila naqsi laxmi aw tadarrubi saxati dañoo bëgg comme que jaamu yàlla la te yàlla nee na yàpp wi itteelu ma der ji itteelu ma walakin yanaaluhu taqwa li ngay présenté yàlla ëllëg te bu ëllëgee gàtt boobu dafay ñëw ànd ak béjjén ya ànd ak weya ànd ak karaw ga na fexe ba nekk gàtt boo xam ne bii dana mucc ci ay dana mucc ayib surtout ayib yi nga xam ne bii dafa dafa dafa leer al uyubul fahisha nga xam ne dafa flagrant ku ko xool ne ko jàkk rek teg ci sa bët min al uyubil fahisha nga xamante ne bii dafay tax ba ndawal gi du demee ni mu war a demee wala boog wérul wér gu ko mën a may nga mën koo tabaskee kal uyubil arbaa almuttafaqi ala kawniha maaniatan min addahiyati am na ñeenti ayib yoo xam ne bii moom boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne ci dëgg-dëgg gàtt bu mu nekk gàtt booba mënta tabaski bi ci njëkk moo di gàtt boo xam ne patt ga dafa bir nañ dafa leer nañ gàtt boo xam ne dafa feebar ba ku ko gis xam ne dafa feebar gàtt gàtt boo xam ne dafay soox ba soox ga ku ko gis xam ne dafay soox bi ci tegu mooy gàtt boo xam ne dafa dem ba yooy moom la ñuy tudde alajaf ay alhuzaalu alajafu bi maana alhuzaal dafa yooy waaw yii mbokk yi fa gàtt bu mu nekk gàtt boobu du mën a tabaski fala tujziu al awraau albayinu awaruha gàtt boo xam ne dafa patt patt ga leer leer ba ku ko gis xam ne gàtt bii dafa patt gàtt boobu du doy wal maridatu al bayinu maraduha dafay gën a leeral rekk gàtt boo xam ne itam dafa feebar feebar bu biir ku ko gis xam ne kii dafa feebar te loolu yow mun a xàmmee gàtt boo xam ne itam dafa dafay soox dafa laggi waaw nga xamante ni bii danga koy gis xam ne kii fa tabarakallahu am na handicap bu baax a baax a baax kooku mbokk yi euh, du yii yëpp du doy kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ci dem di jëndi xar ndax xam ne du caagee nag day jënd xar mu ko neex rek comme ni mu daan jënd xaru ndawal ci biir këram waaye na sàmmonteeg xam ne dafay jaamu yàlla ni ñu ko waxe woon te yàlla nag moom dafa teey la muy nangu mooy lu teey te yàlla sax nee na yaa ayyuha alladina amanu kulu min tayibaati ma razaqnaakum waaw li ngeen di lekk na nekk lu teey na nekk lu baax kon loolu itam jar na bàyyi xel incha allahu tabaraka wa xëy na danañ ci gën a ñëw ci kanam chartu ñaareel bi moo di tabaski bi dafa am waxtu ah, su waxtu woowa ak seegul doo mën a tabaski su waxtu woowa demee ba paase itam doo mën a tabaski la ñuy tudde ay yaamu naxar mathalan bu ñu taxawee arafa ba ca ëllëg sa nga xam ne moo di yowmul xajjil akbar ci la ñuy tabaski bu ñu jullee ba noppi imaam julli xutba rendi gàttam foofa waxtu woo waxtun maxsuus la ci la ñuy mën a tabaski kon ki nga xam ne dafa jiitu loolu ñu ne suba la tabaski mu rendi ci guddi gi kooku tabaskiwul moo tax mu ne wala tasixu tadxiyatu fii laylati ciidil adxa guddik bisu tabaski nga jiitu ko tabaski ca rey ca guddi ga nee na kooku mënta am wahiya laylatul ashir min dil xijja waaw nit ñaa ngi taxaw arafa suba nekk yowmul xajjil akbar di bisu tabaski ca guddi ga nga rey sa xar déedéet wala fii lay laylatil yowmi rabii boo bàyyee itam ba guddik ñeenteel ba bisu ñeenteel ba kooka itam boo ca tabaskee doo am tabaski ndax ay yaamu naxri ñett la bisu tabaski bi bis ba ca topp ak bis ba ca toppaat muy bésu fukkeel bi bésu fukkeel bi ak benn bésu fukkeel bi ak ñaar washtarat almalikiyatu an yakuna dabxu nahaaran ngiru imam malik dañoo charte ne rend gi na am bëccëg fa law dabaxa lam tasixa udxiyatuhu bu ko rendee guddi du am tabaski wannahaaru bi tuluuci lfajri fi gayri lyowmi l awali bëccëg gi nag moo di fajar fenk ci lu bokkul ak bis bu njëkk bi kon charte yooyu mbokk yi mooy charte yi nga xam ne bii mooy tax tabaski wër wér nga bàyyi xel ne maa maanaam moo di gàtt bi na mucc <clears throat> min al uyubi al faaxishati bu ñaareel bi itam mooy tabaski dafa am waxtu wuñ koy defee boo ko defee lu jiitu waxtu wa wala nga def ko bu waxtu wa paase doo am tabaski wa adaafa almalikiyatu chartayni aaxarayni huma islaamu daabixi fala tasixu bi dabxi kaafirin anaabahu saaxibu ludxiyati fiihi walaw kaana kitaabiyan nee ki nga xam ne mooy yéwénal gàtt bi moo koy rey nee na na nekk jullit fala tasixu du wér moom tabaski bi dabxi kaafirin bu fekkente ni bi ki ko rendi yéeféer la yow mi bëgg a tabaski jël nit ne ko kaay nga rendil ma sama xar mi te fekk kala koy yéwénalal du jullit walaw kaana kitaab yi yéen donte chrétien la sax wala muy juif bokk ci ahlul kitaab nga wuutal ko ne ko dama bëgg nga rendil ma taxaw ci wetam bu rendee xar mooma mën mënta nekk tabaski wa in jaaza ak luha lekk ko nag dana dagan ndax ki ko def ci ahlul kitaab la bokk waaye mënta doy ci tabaski wa yustahabu inda gayri almalikiyati an laa yadbaxa al udxiyata illa muslimun ñeneen ñi nga xam ne bii bokkuñu ci ngiru imam malik nee nañ daal ñoom bu ñu sañoon tëbëski kenn du ko rendi ku dul ab jullit wa yukrahu an yadbaxaha addimmiyu alkitaabiyu li annaha amalun li annaha amalu qurbatin wa huwa laysa min ahliha falaw dabaxaha binniyaabati an almuslimi jaaza maa alkarahati ñoom daal nee nañu bu ñu sañoon daal li ñuy tuddee dimmiy wala nga xam ne kitaab bii la sib nañ mu rendi tabaski ndax lii jaamu yàlla la te moom yoonam nekku ci bu ko defoon nag nee nañ doy na ma alkarahati waaye nag bu dee ci ngiru imam malik radiallahu anhu te ñun moom la ñuy topp moo di bu ko defee du doy ci tabaski chartu ñaareel bi itam pour tabaski mën a baax moo di adamul ishtiraaki fi thamanil udhiyati nañu bokk cotiser ma joxe vingt mille keneen joxe vingt mille keneen joxe vingt mille ba ñu dem ba am suñu cent mille wala cent cinquante mille ñu cotiser pour jënd am xar tabaskee kooku mbokk yi du doy moo tax mu ne bu fekkente ne dafa am mbooloo moo xam ne dañoo cotiser pour njëg gi wala mu nekkoon loo xamante ne bii ñoo ko moomoon fa dabaxuha daxiyatan anhum ñu ne nañ ko rey tëbëskee ko lam tujzi an waxidin minhum du doy kenn ci ñoom lan mooy li tax mu mën a baax wa yasixu tashriku fi thawaabi kenn ci ñoom mën naa am xar ne sama xar mii day bi ma koy rendi di ko tëbëskee yéene waale naa ci diw ak diw ak diw waaw loolu moom mën na nekk wa yasixu at tashriku fi thawaabi yéene waale leen ci yool bi qabla dabxi lu jiitu nag ngay rey ba noppi laa baadahu boo reyee ba noppi mënatul la nekk bu fekkente ne bii nag dafa nekk nag walla mu nekk gëléem juróom-ñaari nit mën nañoo bokk jënd tëbëskee ko waaye bu dee am xar mënta nekk te loolu itam dafa am chart bi shurutin thalatha ala al mashhuri indahum bu njëkk bi moo di an yakuna qariban lahu na nekk sa jegeñaale lu mel ne doomam wa axiihi ak mbokkam wa ibni ammihi ak doomu baayam wa yulxaqu bihi azzawja ak soxnaam itam mën nañ ko ci yéegi ki ngay yéene waale loolu itam wa an yakuna mimman yunfiqu alayhi na nekk koo xam ne yaa koy dundal moo xam dund ga dafa nekk waajibatan alayhi dund ko ko war ka abin wabnin faqirayni comme baay boo xam ne bii amul ak doom joo xam ne dafa ñàkk wala dund goo xam ne warul danga koy def rek ngir jokk mbokk aw gayri waajibatin kal axi wabnil ammi lu mel ne sa frère dundam waru la sa doomu baay tax kooku itam dundam waru la chartu ñaareel bi moo di wa an yakuna saakinan maahu fii daarin waaxidatin ngeen bokk dëkk ci benn kër ñetti charte yi bu amee mbokk yi fa tabarakallahu bokk gi mën na am wa yasixu inda gayri almalikiyati al ishtiraaku waxoon sànq rek ci ngiri imam malik moom ab gàtt kenn mënu koo bokk waaye bu dee ci ñeneen ñu dul ngiru imam malik nee nañu bu fekkente ni bi li ñuy tabaskee gëléem la wala muy nag fa yasixu ishtiraaku sabaatin fi baqaratin aw naaqatin juróom-ñaari nit mën nañoo bokk benn nag wala benn naaqa wala benn gëléem idaa saaha ida saahama kullu waxidin minhum bi subuci bu fekkente ne ku ci nekk dafa joxe un septième waaye nag wala yasixu akthar aktharu min sabaa lu ëpp juróom-ñaar mënuñu ko juróom-ñaar dong lañ autorisé ku ci nekk joxe un un ñu boole jënd benn gëléem wala benn nag pour tabaskee ko buñ matul juróom-ñaar itam du mën nekk kon loolu mbokk yi moo doon charte yi nga xamante ne bii moo aju ci mbirum li ñuy yéwénal bu neexee yàlla bu subaa incha allahu tabaraka wa taala danañu wax charte yi nga xam ne moo war a dajee ci ki ñu sant mu tabaski moom ci boppam bii ci gàtt bi la woon bii nag mi ngi aju ci mukallaf bi nga xam ne bii moom lañu def taklif bi uduxiyati lan moo di shuruut yi nga xam ne war na def tawafur ci moom hada wa billahi tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu